nu ngi fas yéene ànd ak yéen toxu jëm ci juróom ñetteelu bunt bi muy xadiisu abi hurayrata radiallahu taala anhu wa ardaahu alxaafid ibn xajar ne wa an abi hurayrata radiallahu taala anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي وللترمذي أخراهن أو أولاهن kon mbokk كوكو mooy juróom ñetteelu xadis bi ci buntub ndox muy xadisu abi hurayra jële nañ ci abi hurayra yàlla na yàlla kontaan ci moom yokk ak leeram mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne tuhuuru laabuk inaa'i ndabal ahadikum kenn ci yéen mooy ndabal kenn ci yéen na muy laabe إذا ولغ فيه الكلب بفك خش دفتع نان موي كن تين بو أمي ندخ ندب رو دف ندخ خش يو نان چندخ مومي ندب لولي نموي لاب موي برم ندب لي تور ندخ ما بفر رخص ندب لي جروم نار يون موي أن يغسله مرخص ندب لولي نغا خمنتنا خش دفتع نان sab'a marratin juróom ñaari yoon day raxas benn yoon raxasaat ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon ba lim ba mat juróom ñaar mooy juróom ñaari yoon ngay raxas ndap loolee nga xamante ne xaj daf naan mu ne uulaahunna nag bu jëkk bi na anda ak suuf raxas bu jëkk bi ndox mi da nga koy ak suuf raxas ndab li ba mu set juróom benn raxasi si nekk nag du ànd yi si des du ànd ak suuf kon hunna bu jëkk bi bitturaabi na ànd ak suuf xadis boobee mu ne axrajahu muslimun limaamu muslim moo ko génne ci saxiixam wa fi lafdin lahu ci beneen baat ba tey bu muslim mu ne fal yuriqhu na tuur ndox ma bu fekkee ndap li dafa def ndox xaj ñëw naan ca ndap la na nga tuur ndox ma bo noppé nga raxas ndap li juróom ñaari yoon bu jëkk bi ànd ak suuf xadis boobu muslim moo ko génne wali tirmisi boo demee nag ci téer tirmisi muy al jami saxee daf ne uxraahunna bu mujj ba aw ulaahunna wala boog bu jëkk ba kooku chakkun min rawi nga xamante ne moo nettali xadis bi moom moo amul lu ko wóor ndax yonent bu jëkk bi la wax wala boog bu mujj bi bu jëkk bi wala bu mujj ba muy bu juróom ñaareel bi kon kii mooy juróom ñaareelu xadis yi bunt bi kan moo ñu ko nettali abi hurayra radiallahu taala anhu wa ardaahu waaye du moom dong moo nettali wax ji am na ñetti saxaaba yu bokkul ak abi hurayra ku ci nekk ci ñoom nettali na it wax ju ni mel jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ke ca dëkk mooy ali ibn abi talibin radiallahu taala anhu wa ardaahu kalañ ñaareel mooy abdallahi ibni mugaffal radiallahu taala anhu wa ardahu kalañ ñetteel mooy abdallahi ibni omar ibni alxataab radiallahu taala anhu wa ardahu kon nag xadis bi am nay shawahid ali yi nettal na ko jële ko ci nant bi abdallahi ibni mugaffal nettali na ko moom it jële ko ci nant bi ak abdallahi ibni omar ak abi hurayra li nga xamante ne موم لا الحافظ ابن حجر على اسقلاني عندي اب حديثم تي بنت بي كون حديث بي نيو نيوكو نتلي ني نك اي صحابه مسلم جن نكو الترمذي جن نكو ميم بخاري تي بوبام جن نكو ميم بخاري تي بوبام رحمه الله جن نكو تي صحيحام ابي هريره مي حديثم بي ديك نتي فك يون يور له طرق عشرة كلها صحيحة مع نعم، أبي هريرة الحديث دي منتلي أم نفك يون يمدك يو خميتلي يبيرنا بنو ديالو تي إرواء الغليل بو العلام الألباني دجلنا تي تيرم بو بوبي فك يون يغا خميتنا حديث بي دفتيا جار كون حديث لبو خميتنا حديث بو ويرلا وايه بنيو ديالو تي بي الحديث بي دنجي جيس منه na raxas ndab li juróom-ñaari yoon bu jëkk bi ànd ak suuf kooku mooy riwaayeb muslim riwaayeb tirmidi mu ne bu jëkk bi wala bu mujj bi bu mujj bi wala bu jëkk bi kon ñaari riwaaya ngoog am na ñetteelu riwaaya mooy na raxas na ko raxas juróom-ñaari yoon juróom-ñaareel ba ànd ak suuf kooku dikk na ci ab riwaaya am na beneen riwaaya mooy bii wax naan na ko raxas juróom-ñaari yoon juróom-ñetteel ba ànd ak suuf kon yii riwaay yëpp wér na rot na ci xadis bi riwaay bu jëkk mooy riwaayab muslim raxas juróom-ñaari yoon bu bi ànd ak suuf ñaareelu riwaaye bi mooy riwaayab tirmidi moom dafa wax ne bu mujj ba wala boog bu njëkk ba ñetteelu riwaay bi mooy riwaay bi nga xamante ne dafay wax na ko raxas juróom ñaari yoon juróom ñaareel ba ànd ak suuf ñeenteelu riwaaya bi mooy riwaayab abdallahi ibn mugaffal dafa wax ne naka raxas juróom ñaari yoon bu noppee ci juróom ñaar yi buñ juróom ñetteel bi ànd ak li nga xamante ne moom moo di suuf waaye ñeenti riwaaya yooyu yëpp mbokk yi bi ci gën a wér gën cee not mooy riwaayab imaamu muslim mooy riwaaya bi wax naan bu jëkk bi ànd ak suuf riwaaye boobee mooy riwaay bi nga xamante ne moo gën a lëng ñetti riwaay yi nga xamante ne ñoo ci des ñoo gën a lëng ñetti riwaay yi nga xamante ne ñoo ci des kon loolu mooy riwaay yi nga xamante ne moo dikk ci suuf si ndax day ànd ak bu jëkk bi wala boog bu juróom ñaareel bi wala boog bu mujje ba wala boog mu ànd ak bu juróom ñetteel ba ba tey ci hadis bi gis nga dafa wax ne wa fii lafdin lahu fal yuriqhu ci beneen baat bu muslim dafa wax ne na tuur ndox ma raxas ndab li juróom-ñaari yoon bu njëkk bi ànd ak suuf baatub na baatub na tuur ndox mi am na sëriñ bu ñuy wax ibni manda sëriñ bu mag bu ne baat bii ñëw ci riwaaye muslim di wax naan fal yuriqhu na ko tuur nee na baat bi kat wérul baat bi wérul nee na kenn tudd ko ku waa ju ñuy wax ali ibni mishir te ali ibni mishir soloowul jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam benn xadis loolu sëriñ bu mag bu ñuy wax ibni manda moo ko wax waaye borom téere muy alxaafis ibni xajar tontu na wax jooje nga xamante ne dafa bawoo ci sëriñ boobu ñuy wax ibni manda mu ne aha baat bii di wax naan na tuur ndox mi ñëw na ci saxihu muslim ci waneenu yoon woo xamante ne muslim daf ko génn jële ko ci sëriñ bu ñuy wax amash suleyman ibn mihran al kufi amash moomee jële ko ci abi salih abi salih jële ko ci abi hurayra kon nag li ibni men dox naan xadis bii baatu fal yuriqhu ali ibni misir dong moo ko nekk te li jële ko ci yonent te moom jëlewul ci yonent wax joojee ibn hajar nee na wax la ju ñuy delloo ndax muslim génn na baat bi ci riwaaya boo xamante ne mu ngi ko jële ci amash amash jële ko ci abi salih abi salih jële ko ci abi hurayra te riwaaya boobu al imaamu daara qutni wéral na ko kon nag baatu na tuur ndox mi baat la bu wér boo xamante ne dikk na ci saxiixu imaamu muslim kon xadis bi xadis bu wér la yonent ne ndabal kenn ci yéen ni muy laabe bu fekkee xaj daf caa naan mooy mu raxas ndab la juróom-ñaari yoon bu jëkk ba ànd ak suuf loolu la xadis bi firi ñu delluwaat nag xool atte yi nga xamante ne moom lañuy ñuy jële ci xadis bii att yooyu att yi limu la ba ca jëkk mooy xukmul kalbi lan mooy attib xaj ndax moom la yonent wax ci xadis bi xaj bu naanee ci ndabal kenn ci yéen na tuur ndab la la ca nekk ba pare raxas ndab li juróom ñaari yoon bu jëkk bi ànd ak suuf waaw lan moo tax xaj bu naanee ci ndab sharia digal ñu ñu raxas ndab loolee juróom ñaari yoon bu jëkk bi ànd ak suuf lan moo tax kon war nañoo xool ndax xaj dafa nekk sobe moo tax ñu jox ñu ndigal loolee wala boog déet kon loolu mooy àtt bi ñuy jëkk jël ci xadis bi mooy àttey xaj ndax xaj sobe la wala boog xaj nekkul sobe borom xam-xam yi lislaam yi yal na yàlla yokk seenuk leer dëgëral seeni taxawaay barkeel la wéy seenuk dundu dañoo wuute ci àttee xaj ba wax ci ñaari wax yu bokkul am ab kuréel ci ñoom ñu ne xaj bu fekkee gémmiñ gi daa nekk sobe ba tax bu naañee ci ndab bu fekkee xaj gémmiñ gi dafa nekk sobe ba tax bu naanee ci ndab sharia digal ñu ñu raxas ndab loole juróom-ñaari yoon bu jëkk bi ànd ak suuf kon nag dafay wane it dafay yóbbaale ne jëmmam ji li ci des yëpp sobe la loolu mooy xawlul jumhur li ëpp ci borom xam-xam yi nee nañu xaj léppam sobe la xaj léppam sobe la ñooñee seen wax jooje ñu ngi ko wéer ci xadiisu abi hurayra bii indi yonent moo ne xaj bu naanee ci ndabal kenn ci yéen ndab loolee na muy laabe mooy ñu raxas ndab li juróom ñaari yoon bu jëkk bi ànd ak suuf kon lii dalil la ndëslaay la buy wane ne xaj ci boppam sobe la sharia nag gémmañ gi la wax ndax gémmañ gi moom lay naane min babil xaalib gémmañ gi la ëpp lu muy jëfandikoo waaye gémmañ gi ak cër yi des ci moom yépp sobe la moom xaj kon loolu moom mooy ndëslaay li jëkk li mooy xadis abi hurayra bi ba tey ñoom ñu tegtaloo ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba muy doog a dikk madina am na ndigal lu mu jaxawoon ne fu ngeen gis ab xaj rek na ngeen ko rey gannaaw gi la folli ndigal loolee ne man nañoo bàyyi xaj ñi rey ndax xëñ ne mën nañ koo jëfandikoo ci yeneen wàll kon loolee dalil la buy wane ne xaj ci boppam la tax yonent yàlla bi jaxawoon ndigal pour ñu rey ka nekk gu mu nekk sobe moo tax nekk gu mu nekk sobe moo tax kon ñaari ndëslaaya ngi yoo xamante ne kuréel bu njëkk boobee foofee la ñu wéer seen wax ba wax ne xaj ci boppam léppam sobe la kooku moom mooy wax ju jëkk ji ñaareelu wax ji mooy ñuy wax naan xaj du sobe ñu ne ñoom xaj ci boppam du sobe wax la joo xamante ne dañ koy askanale sëriñ bu ñuy wax écrima wax la jiit ju ñu toxal jële ko ci limaamu Malik ci ab riwaaya Malik ci masala bi attey xaj dañu toxal ci moom ñaari wax yu bokkul am na wax ju ñu toxal jële ko ci malik di wax naan xaj ci boppam sobe la am na wax ju ñu toxal ba tey jële ko ci malik muy wax naan xaj ci boppam nekkul sobe kon limaamu malik ci masala bi daf ci am ñaari riwaaya loole nag gëstu lay laaj ñu ma ñu war a xam ñaari riwaaya yooyu ana ban riwaaya moo ci mujj wala boog ana ban riwaaya la aimmatul mazhab boroom xam-xami ngir mi nottal ci ñaari riwaaya yooyee waaye daal am na riwaaya nañu jàpp am na riwaaya bu ñu toxal jële ko ci Maalik muy wax naan xaj boppam nekkul sobe kon kooku moom mooy ñaareelu wax ji ci àttey xaj euh, ñaareelu wax joojoo nag seeni borom fuñ ko wéer lan mooy seen ndëslaay seeni ndëslaay mu ngi nii ba ca jëkk mooy yàlla subhanahu wa taala moo wax ci alquran ne fakulu mimma amsakna alaykum yéen julit yi bu fekkee da ngeen ànd ak seeni xaj di rëbbi yooyee nga xamante ne ay rëbb la te xaj ci jàppal leen ko yooyee man ngeen kaa lekk ñu ne bu fekkoon ne xaj sobe la kon la mu jàpp dafay nekk sobe ju dagaan a jëfandikoo waaye yàlla moo wax ci alquran ne nit ki bu àndee ak xajam di rëbb xaj mi jàpp am rëbb àndil ko ko loolee mu jàpp ci ay charte nag mooy fekk xaj bi daf ko jàngal rëbb te ba mu koy xiirtal ci rëbb bi daf ko dafa tudd tur yàlla bu fekkee xaj bi am na lu ko lu mu ko jàppal àndil ko ko loolee dina dagan ci moom mu lekk ko bu fekk kon ne xaj sobe la kon charia du ñu permettre mukk ñu jàpp rëbb moo ñu lekk rëbb moo xamante ne xaj moo ko jàpp kii moom mooy ndëslaay lu jëkk li waaye boroom xam-xam yu jëkk yi ñi waxoon ne xaj sobe la am na tontu lu ñu tontu ndëslaay lii tontu lu jëkk li mooy dañ leen wax ne dëgg la yàlla daganal na xeetuwul lislaam ñu lekk rëbb yi nga xamante ne seen xaj ya ñu jàng rëbb dañ koo jàpp waaye nag loolee du firndeel ne du firndeel ne xaj ju sobe loolee du firndeel ne xaj ju sobe bu ñu jëlee teg texte boobee mooy aaya boobee boole ko xadis yi nga xamante ne dafa rot ci ne bu xaj naanee ci ndab nañu raxas ndab la juróom-ñaar yoon kon rek nii lañ ciy génnee niñ ciy génnee mooy bu fekkee xaj bi am na lu mu jàpp ba andi ko balaa ñoo lekk lekk loolee dañ koy raxas ba noppi ndax xaj gémmañam ak jëmmam sobel kon noonu la ñuy boolee teg yi waaye duñ ci dégg ne xaj ci boppam du sobe duñ ko ci dégg dañ ciy dégg rek ne li xaj bi jàpp man nañ koo lekk ci condition bu fekkee raxas nañ ko ba noppi kii mooy tontu bu njëkk bi nga xamante ne moom la kuréel bu njëkk bi tontu kuréelu ñaareel bi waaye kuréelu ñaareel ba léegi nangooguñu ñu ne waaw lan moo tax a ba mu waxee ne bu xaj yi jàppee la jàpp na ngeen ko lekk lu tax a waxul ne da ngeen ko raxas ba fay dog ko lekk yàlla ci aaya bi waxul raxas daf ne fa kulu mimma amsakna aleykum na ngeen lekk la seen xaj yi jàpp pour yéen bu fekkoon ne ne raxas gi charte la ci ne kon yàlla dina ko junj ci biir aaya bi kon kuréelu ñaareel bi ñoom ñoo dellu delluwaat gannaaw tontu tontuwaat tontu loolee nga xamante ne kuréel bu njëkk bi ñoo ko tontu seen laay loolee waaye ba léegi kuréel bu njëkk bi ñoom it nanguuñu tontub ñaareel bi nga xamante ne moom la kuréelub ñaareel bi tontu ñu ne waaw li tax yàlla waxul raxas ci aay bi mooy dafa doyloo rek yeneen texte yi ndax bu fekkoon ne amul benn texte buy joxe ndigal ñu raxas ko kon bu boobaa yàlla dina ko junj ci aay bi waaye gannaaw dikk na ci ay tex yu wér yonent xamal ñu ne xaj bu naane ci ndab na ngeen raxas ndab loole kon nag gannaaw junj nañ ko ci charia kon dootul aajowoo ñu koy andi ci aaya bi dootul aajowoo dootul aajowoo ñu koy andi ci aaya bi kon lii mooy ndëslaay li nga xamante ne moom la kuréelub ñaaral bi tegtaloo lii mooy tont yi nga xamante ne moo dox seen diggante ñoom kuréelub ñaaral bi ak kurel bu dëkk bi ba tey bokk na ci ndëslaa yi nga xamante ne kuréelu ñaaral bi dañ ko wér seen wax ne xaj du sobe ñu ne sax na ci xadis boo xamante ne abu abd abi abi abi abi daawuda moo ko génne am na xadis boo xamante ne abi daawuda moo ko génne ci sunanam jële ko ci abdallahi ibni omar ibni alxataab mu ne abdullah ibni omar ma wax de نينا كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان الرسول الله في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وهو في البخاري ابن عمر نينا تي جامونو يونت يالا خاتي دار نانيو تي بير جاك جي تي جاك يونت بي دي تي بونتو دي ген تي بنن بونتو تا تي جامونو فوفي خاتي دان توك ولا نفو دان تد داوون تي داف ندوخ داوون تي loo ciy dégg dañ ciy dégg na bu fekkoon ne xaj sobe la duñ ko bàyyi mu dugg ci jàkk ji ndax ci jamono yonent bi daan nañu dugg ci bunt bii génn ci beneen bunt te fañ daan toog fañ daan taxaw ibnu omar nee na kenn daawu ci def ndox kooku mooy riwaayat abi daawud même sax ci riwaayat tirmidi nee na xaj yi daan nañu sax saa saa saw ci biir jàkk ji te daawuñ ci def ndox te daawuñ ci def ndox kon ñoom ñu ne lii ndëslaay la buy wane ne xaj ci boppam nekkul sobe xaj ci boppam nekkul sobe waaye kuréel bu njëkk bi mooy ñiy wax naan xaj sobe la am na tontu lu ñu tontu ndëslaay lii ñu ne ay xadis yu baree bari dafa rot ci wane ne saw xaj sobe la te it daanaka boroom xam-xam yépp dëppoo nañu ne xaj sawam sobe la kon nag deesul bàyyi dëppoo googu nga xamante ne boroom xam-xam yi dañ koo dëppoo ngir nettali bi nga xamante ne ibni omar daf ko nettali kon kii mooy tontu bu jëkk bi nga xamante ne dañ koo tontu ndës laay loolee ñaareel tontu bi ñu ne xëñ na li tax daawuñu sotti ndox foofee nga xamante ne xàcc dañ faa saw ndax dañu xamul palaas bi xàcc dañ daan dugg ci bunt bi génn ci beneen bunt xamuñu place bi te it saw ma bu yàggee ci biir jàkka ja ba tàngaayu jant bi jàpp ka xaj gi day dem jeexintal gi day dem ba dootul aajowoo ñu ci sotti li nga xamante ne moom moo di ndox dootul aajowoo ñu sotti ci li nga xamante ne moom moo di ndox kooku moom mooy ñaareelu tontu bi nga xamante ne kuréel bu njëkk bi tontu nañ ko ñaareelu ndës laay loolee nga xamante ne moom la kuréel ñaareel bi teg ci ci wax ne xaj du sobe ñetteelu tontu bi ñu ne xàcc buñ daan dañ daan saw li ñuy dégg xadis boobee mooy xàcc dañ daan saw si biir jàkk ja dugg jaar ci bunt bi daw génn si beneen bunt waaye du caagin ne ca biir jàkk ja lañ daan saw si biir jàkk ja lañ daan saw loolee sëriñ bu ñuy wax al al mundiri moom la notal ci ab téere waaye al xaafid ibn xajar ne xadis bii xadis bu wér la mooy li Ibn Omar wax ne ci jamono yonent bi xaj yi daan lañuy dugg ci bunt jàkk ji génn ci beneen bunt ci beneen riwaaya sax na ne daan nañu sow ci biir jàkk ji te daawuñ ci def ndox Ibn Hajar nee na loolu lu am la waaye ci tàmbali la woon bi yonent bi di doo ko ñëw Madina ci la mbir yooyu daan xew waaye gannaaw ba mu àddoone xaj sobe la ci la saxaaba yi tàmbalee aaya xaj yi ñuy dugg ci biir jàkk ji kon ci tàmbali la woon gannaaw gi nag ndigal rot pour wane na xacc ci boppam sobe la ak ay am sawam ak ay neefare ba tax mu nekk loo xamante dootuñu ko bàyyi muy dugg ci biir jàkk ji kon lii mooy ñaareelu ndëslaay bi ak tontu yi nga xamante ne moom la borom xam-xam yu tontu ndëslaay loolee ñu toxal nag jële ci cheikh al islam ibnu taymiya mu ne ci majmu al fatawa ci xaajub ñaar fukk ak benn ci xëtum juróom benn téeméer ak fukk ak juróom benn ba ci juróom benn téeméer ak ñaar fukk mu ne lu'aabul kalbi najisun wa saa'iru ajzaa'ihi najisa bil qiyaas amma shi'ruhu fa taahir cheikh al islam bin taymiya rahimahullah ne yuuti xaj sobe la nee na cër yi des ci moom yépp it sobe la dañ nee na cër yi dañ koy xiyaas ci gémmañ gi bu fekkee gémmañ gi sobe la dañuy xiyaas cër yi nga xamante ne ñoom ñoo ci des nee na waaye nag bu dee kawar gi nga xamante na moo ne moo muur yàpp bi kawar gi nee na kawar gi moom du sobe kawar moom du sobe ndax am na ñoo xamante ne mënuñ cee mucc waaye bu dee gémmañ gi ak yuuti ak li des ci cëram yépp ak am sawam ak ay neefaram nee na loolee lépp sobe la kon mbokk yi doomu ndey yi lii mooy wuute bi nga xamante ne dafa rot ci xaj ndax sobe la wala boog nekkul sobe man nañoo dellu ci majmu ci al majmu bi imaamu nawawi daañ ci fekk lu gën a yaatal lii ci xaajub ñaareel ba xëtum juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar ba ci juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett man nañoo dellu ci al muntaqa bu imaamul baaji dañ fekkit xalaat yi nga xamante ne moo rot ci ngirum limaamu malik ca xaaj bu njëkk ba ci xëtum juróom ñaar fukk ak ñett ba juróom-ñaar fukk ak ñeent kon kii moom mooy masala bu njëkk bi mooy lan mooy àttey xaj boroom xam-xam yi dañ cee wute ñii wax ne xaj sobe la am na fu ñuy wéer seen wax jooje ñii wax ne xaj ju sobe ñoom it am na fu ñu wéer wax jooje waaye gannaaw bu ñu defee gëstu xool ku ci nekk ndëslaay li nga wéer sa wax ak tey yi nga xamante ne moo dox ci diggante ñaari ñaari kuréel yooye wax ji mooy wax ji gën a not ci ñaari mooy xaj sobe la loolu mooy li gën a wér xaj ci boppam gémmañ gi sobe la cërëm yépp sobe lañu am sawam sobe la ay neefareem sobe la lenn dong la ci boroom xam-xam yi génn mooy kawar gi kawar gi ci boppam nekkul li nga xamee ne moom mooy sobe kon lii mooy àtte bu jëkk bi ñuy jële ci xadiisu abi hurayra bi yàlla na yàlla kontaan ci moom yokk ak leer ñereelu àtte bi mooy ak tey raxas ndab li nga xamante ne xaj def te naan juróom-ñaar yoon ndax juróom-ñaar lu war la wala nekk lu war ndax yonent dafa ne xaj bu naane ci ndabal kenn ci yéen na raxas ndab la juróom-ñaari yoon bu jëkk bi ànd ak suuf waaw juróom-ñaari lim yi ndax lu war la wala boog nit ki bu ko raxasee benn yoon rek dina doy ci moom wala boog déet boroom xam-xam yi lislaam yi yal na yàlla kontaan ci ñoom yokk seenuk leer ñoom it ñu delluwaat wuutewaat ba tey ci limub juróom-ñaar yi ndax lu war la nit ki warul ëppal juróom-ñaar warul yéesal juróom-ñaar wala boog nekk lu war nga xamante ne nit ki mën naa ëppal wala mën naa yéesal ñu wuute ci ba wax ci ñaari wax wax ju jëkk ji am nañu ko wax ñu ne juróom-ñaar yi lu war la kenn waru koo ëppal kenn warul yéesal lu war la bokk na ci wax wa ñi wax wax joojee sëriñ bu ñuy wax Urwa